ñun kuréelu way laago yi ñu waxtaan def ay plaidoyer xeex xeex xeex xeex ba ñu teg li ñuy wax loi d'orientation sociale ñu loi bi bu ñu ko defee hmm. mën nañ ci dugal ay instruments yoo xam ne bu ñu leen mettre en œuvre correctement dina mën a indi ay saafara hmm. yu am solo ci problème yooyu ñu am yëpp moo xam njàng mi la moo xam wér gi yaram hmm. moo xam cadre de vie bi moo xam liggéey handicapé ci biir loi bi ñu def ci ay ay ay mécanismes comme bi nga wax léegi carte d'égalité des chances entre autres mécanismes mm-hmm. ñu def ci ñu ne handicapé bi dañ ko war a jox carte d'égalité des chances mm-hmm. nga xam ni carte d'égalité des chances boobu dafa koy jox dafa am ñaari fonction mm-hmm. yu ko loi bi jox fonction bu njëkk bi mooy fonction d'identification parce que sànq bi may commencer maa ngi lay wax waxu statistique yi statistique yi dañuy xuloo ñii nee nañ handicapé yi mat nañ 3 millions ñii ne 2 millions ñii ne 5 pour cent ñii ne 10 pour cent ñii ne 15 pour cent ñu ne bu ñu defee carte d'égalité des chances képp kuy handicapé ñu jox la ko facilement di nga xam ñaata lañ léegi ñëpp am nañ ko donc mooy fonction d'identification day nekk genre carte dentité handicapé. mais daf lay am daf lay may euh? ay privilèges wala. waaw foofu laa jëm loolu mooy première fonction bi mooy identification. deuxième fonction bi mooy. li ngay tuddee privilège fonction de protection sociale wala fonction de service. Mhm. maanaam yow boo ko yoree carte bi da lay jox sañ-sañu nga mën a ñu yombalal la. Mhm. nga mën a accéder ci service yi ñu doon wax léegi moo xam éducation la moo xam santé la. moo xam mhm. habitat la moo xam yi ñu wax yépp waaw transport. transport et cetera. ba mu mat sept services la loi bi cité. donc ñaari fonction yooyu la am benn bi mooy mu identifier la. nga xam ne yow handicapé nga. beneen bi mooy boo ko yoree mu yombalal la accès au service alors a carte boobu loi bi déjà 2010 la woon carte bi ñu ngi ko lancé 2015 la ñu commencé produire carte yi 2015 ak léegi c'était le 30 avril 2015. 30 hmm. avril 2015 ak léegi def na juróom-ñetti at ak ay weer ak genn wàll au moins hmm. Hmm. mais entre. ci juróom-ñetti at yooyu soixante dix mille cartes la ñu produire soixante dix mille cartes sur une cible sur une cible minimale de deux millions de personnes ah. maanaam yow ameel nga ma bor deux millions ci juróom-ñetti at avance nga ma ci soixante dix mille kan <laughs> la bor le premier problème maanaam Sénégal yëpp soixante soixante dix mille personnes dafa am commission bu koy gérer waaw waaw soixante dix mille personnes ñoo am carte d'égalité des chances te deux millions ñoo ko war a am lu mu néew néew. kon ñeneen ñu ngi xaar. ñu ngi xaar maanaam ci juróom-ñetti at la lool de léegi bu ñu jëlee yeneen juróom-ñetti at maa nekk soixante dix mille yeneen juróom-ñetti at mu nekk soixante dix mille millions yi di mat. ñun suñuy sët du ko fekkee. donc premier problème mooy rythme de production de la carte d'égalité des chances. ça c'est toujours l'administration baaxul dafa yéex. beneen bi. Mm-hmm. loolu moo lié à la fonction bi ñu wax léegi d'identification. léegi boo jëlee fonction de service mooy avantage yooyu wala privilège yi ngay wax tamit amul benn boo xam ne am na effectivité parce que dañu waxoon ne yow handicapé bi boo amee carte bi kat dina la yombalal lii yombalal la nga mën a jàngi yombalal la nga mën a faju yombalal la transport bi yombalal la lu bëree bëree. Dakar dem dikk nee na ñoom foofu c'est acquis. waaw dinaa ñëw si Dakar dem dikk. Hmm. yaa ngi dégg alors loolu c'est pas effectif. tey jii ñu yore carte bi sur les soixante-dix mille. avantages yi ñu am ñaari avantage la mooy ñenn ñi à peu près trente cinq mille ou trente six mille am nañu li ñu wax bourse de sécurité familiale. ok à peu près vingt cinq mille am nañu couverture maladie maanaam. Mhm. enrôlé nañ leen ci mutuelle de santé jeex mais bu ñu fàtte ni bourse de sécurité familiale ak CMU Macky Sall moo ko indi Sénégal. Hmm. maanaam amu fi woon. te ba ñuy defar loi bi di créer carte d'égalité des chances Macky Sall nekkaguloon au pouvoir. ok yow bëgg wax mooy. la carte ne visait pas ça. parce que ça n'existait pas. lu existé wul mën loo ko viser. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. CMU bourse ils sont nés en 2013 et 2014. la loi la carte d'égalité des chances date de dix donc bu ñu doon wax accès au service de santé accès ci lii accès ci lii accès ci lii CMU taxul woon parce que xamuñu woon CMU ça n'existe pas. tout à fait bien que on ne crache pas là-dessus. mais du loolu moo ko tax a jóg. Mhm. li ko tax a jóg mooy ñu fexe ba boo yoree carte bi mën a faju ci ni mu waree. boo yoree carte bi mën a jàngi ci ni mu waree boo yoree carte bi mën a. Euh, dem ci transport yi ci ni mu waree et cetera mhm. comme ni ko loi bi waxee mhm. loolu nag amul effectivité léegi problème bi Birama mooy boo xoolee handicap li ñuy wax ci tubaab c'est une question transversale maanaam li mu laal dafa bari